mooy yoon. d'accord terme actualité aussi moi, euh, sorti président de la république euh, Macky Sall euh, si par rapport à affaire Ousmane Sonko adissa vous bu que vous dañu non gëmloo ko ni affaire privée la tey ñu dem bu président wax ci est-ce que gën na tout cadre privé bi. xam nga li ma bëgg expliquer. affaire bi mënut a génn cadre privé ne nit ñi dañ koy jëm tourner ko ci nek tourner wa tourner ça veut dire que l'honorable député Sonko. man du ma ko sosal moom moo jëkk def conférence de presse mu ni affaire bi président Macky Sall mhm. kon donc kooku moo jëkk moo politiser affaire bi Sonko si boppam Sonko yow sa déglu nga ko bàyyi leen seen yi def ko gis nga Sonko mu def de presse fii taxaw ne lii dañ maa koy yàgg nañ maa wax ne ñu ngi ñu may ñu may ñu may ko ñu ngi may ñu ngi may sa xel la waxoon président Macky Sall moo def kooku moom defu sax détour am na droit am

ne ki mo tooñ ou ki kii bu boba ma japp ne loolu la juge bi wax ci digënté bi luma ci wax rek ma ngi naa feq te maa ngi tooñ duma ko def légui nak pour revenir ci question spécifique bi nga poser ni gis nga le président Macky Sall wurtu a dugg ci yu mel non wóoru ci wax affaire ñaari eh, ki la damay déplorer sax euh, le manque d'élégance de Foka moy ce journaliste bobu nga xamni ne mo ne moom di poser président question ni def protocole bi bu fekkee ni ñun au Sénégal ñoo def protocole bi ba permettre journaliste boobu mu poser des questions. nous avons mal agi moi n'aurais jamais fait un protocole de permettre à un journaliste me poser suma président question boo xam ne du ko poser Macron ay question de mœurs dama la ni question de mœurs y a question de mœurs yu concerne deux citoyens ñoom duñ ko poser est-ce que dañuy toog Macron nga dégg journaliste toog a poser ay question sur DSK Demis Strauss-Kahn li mu def affaire viol ak ñi ñu posé viol qui ci biir est-ce que da nga gis journaliste français qui parle di posé Macron question bu mel non bu jël ci affaire homosexualité ay ay ay ay ay ay ay non président africain il faut que moom à mon. et puis je l'ai vu ci a émission yu bëri mu jël président africain il est d'une arrogance d'une insolence je vais vous te question ma attaqué président africain je parle de Foka tu as posé une question que Foka a posée Foka dafa respecter les présidents africains Il y question une question qui di poser warutoon poser au président Macky Sall mhm. cette question relative à des problèmes de mœurs et puis relative à l'émission d'un président de la République dans une affaire civile. Mhm. Ça, ce n'est pas le rôle du président de la République. Vous imaginez ça, sax di ci le président de la république même si vous ne am pour des raisons d'ordre politique ou de défense mon mot, ça c'est le problème des citoyens n'est pas son affaire un journaliste de renommée respectueux de ses invités xam les droits civils qui xam l'institution qu'est un président de la république ne doit pas poser cette question Nous sommes su fekkee ne ñun le protocole bi mm. dem nous ba introduire tout pour permettre au président Macky Sall mu wax ci on a ñi ko def def nañu faute bu rëy bu garaaw parce que président Macky Sall comme nous mu ko il a d'autres choses beaucoup plus sérieuses que de s'occuper de problèmes civils xam nga lan mooy soo waaye dama ne xoolal xam nga xam nga comme di comme question ko ko poser. mais du ko daw mais dañ ko ko warutoon poser faut Foka bu fekkee moo ko def personnellement waru ko def su fekkee ñun suñu gars nous dañoo accepté le protocole d'interview bàyyi ñuy dugal ci question bob Nous, nous ko def war ñu ko woonoon nangu xam nga li li fondamental mais xala retenir la question de fond est-ce que le président de la république amul tous les jours le tribunal ci wax yii ñuy wax man ak yow ñu ngi juger ay sénégalais yu am ay problème de biir pour quelle raison du ñu jël que ñuy def fait dem indil ko président de la république ñu bëgg koo jël dugal ko ci ay ay ay ay de mort. yoo xam la puissance d'un état si un état veut t'éliminer ou bien un état bëgg la yàqal xam nga ni état ni mu baree doole ak ni mu baree ay moyens mën na laa def lu gën a garaaw loolu lu la wàññi mbaa lu la yàq sans pour autant que mu jaar ko ci benn xale bu jigéen bu ndaw bu amul ay expérience surtout di dugg ci ay vilain salon de massage y a d'autres choses yow état fi ni bu ko neexoon yow yow yow yow état bu ko neexoon fi nii xoolal foo jaar ñu topp la foo dugg ñu filmer la dugal la fii ci YouTube bi defal la affaire yooyu yëpp te doo xam ku ko def kon il faudrait que nit ñi dem benn sérénité de jugement

ngi yow nga toog ñu la yaa ngi woon ci biir affaire nga toog noppi waxoo ci nga toog benn journaliste posé la ko Sénégal monde bépp di la déglu nga ne ko loolu yéenewuma ko kim dal sama yoon nekku ci yëguma tinuma ca itam am na lu gën a ñor que di def yëf yu sew yooyu loolu nooy joxee raison kenn est-ce que ne man la est-ce que da kaa joxe sa xalaat jox enquête ba ne la demee kii moo tooñu ko ba avril poser les bonnes question

yàlla ak ñoom ñoo nekkoon ci biir néeg loolu moom moom la président bi wax